ak mboolem ñi nga xam ne tànn na leen teg leen ci wetam ngir ñu jàppale ko ci liggéeyam maam ju tedd ji yàlla na ci am lu kawe njortam te lépp nànd ko ak siyaar bu baax mboolem kilifa diini yi ak kilifa aada yi ci réew mi ak bitim réew yëpp di beral ak siyaar akuk cant akuk ñaan sunu yaakaar gi nga xam ne moo fi wuutu sëriñ Touba sëriñ Saalihu Mbakke mi kenn dul fàtte muy sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke ñu ngi koy ziyaare bu baax te di ko ñaanal jàmm moo koy rakkam bàyyiwun kenn jotaay bii bu ñu ko gisee rek xel yëpp dana delluwaat ci sunu yaakaar ja sëriñ tubaa sëriñ saale Mbàkke mi nga xam ne defal na kenn ku ne ci nun loo xam ne mënoo koo fay waaye day mel ni bor boo xam ne bam la koy lebal tumurange ko lool waaye loo koy joxe dag naan ko ca loola maa ko dugal ca bor ba waaye nekku luñ mën a fay jotaay bi nag di jotaay boo xam ne jotaay bu riis la ndax mbooleem jabatug sëriñ bi bu ñu ko xoolee dana leen am fu mu leen delloo kenn ku nekk mën a doon ku mat jaar ci keppaarug sëriñ Saalix looloo tax am nañ ci ak cant lool ndax ñi ngi fii ci barab bu tedd bu ñuy wax jannatu naim ci kër sëriñ Moustapha jóob di kenn ci njaboot gi di kenn ci taalibe yi ñi teew fi nag ak ñii ñu feggool ñuy sunuy jëwrin laata dara ñu jéggalu ci toogaay bi nga xam ne toog nañ ko ak ñoom waaye xëy na jotaay bi rek moo ko laaj waaye ñu ngi koy jéggalu ndax ñu ngi feggoog sunu ndeyjoor ki nga xam ne mooy Serigne Adibou Diop imaam moom Serigne Mouhamadou Lamine Diop Dagana ñëpp xam ko ci keppaaruk Serigne Salih muy imam jannatu maxawaa di ñaan suñu borom dëgëral ko kattanal ko àggale ay yéeneem waaye ñu feggoog ci loxo càmmoñ Serigne Souhaïbou Cissé ñi gën koo xam ci abol baraka lañ koy wax wala boog ñi mel ni man muy koo xam ne saa buñ gisee xar kanamam xel yëpp dana dem ci ñaar muy waajuram wa sëriñ Mor Mbay Siise nekk jàmbaar ju ñëpp xam wala ñu ëpp xam ko waaye xel yëpp demaat ci sëriñ Tuubaa sëriñ Saalihu Mbakke yàlla na ko yàlla dolli wér dolli ko kattan dolli ko toofeex àggale ay yéeneem ñu feggoog itam ci ñi nga xam ne danañ jël kàddu muy Serigne Cheikh Diouf mi nga xam ne moom itam buñ ko tuddee xel demaat njaareem kër Baye Souley Guèye Serigne Souley Guèye daaray Kaamil waaye xel del siwaat ci Serigne Touba saal Saliou Mbacké mi nga xam ne moo ko fa dëloon muy imam tey ci biir Touba gi di jàmbar lool di borom xam-xam ñooñu lañu ñu warite ne seqal jataay bi muy jataay bu am solo boo xam ne te danañ ci waxtaan waxtaan wuris bu mat a bàyyi xel bokk na ci ñi nga xam ne ñooy suñuy kilifa te wax ko léegi bokk na ci sëriñ Koso Mbàkke moom sëriñ Koso Astulo Daarul Moxti di ñaan suñu borom dëgëral ko kattanal ko dolli ko wér ndax ñii ñëpp kuñ ci gis rek xel dana am fu mu la yóbbu waaye bokk na ci sëriñ Balla Jaxate mi nga xam ne dama koy faral di wax man fu ma la gisee du ma jàqati ndax lan ku jege sëriñ bi la ci fànn yëpp waaye tam mu doon ko woyof safaanub aba wastakbara wa kaana minal kaafiriin kon ñu ngi koy ñaanal jataay bi yàgg na ko teewe yàlla na yàlla def mu yàgg ko teewe bokk nag ci sunuy conseil euh, mu den ak sëriñ Moustapha Diouf moom it buñ ko tuddee xel yëpp dem ci ahlu lambay gépp moom it ñu ngi koy ziare di ko ñaanal jàmm mu bëgg lu baax lool yàlla na ko yàlla defal jàmm bokk na ci sëriñ Magay Jaxate Lantinoor moom it mi ngi fi toog sëriñ Abdoulaat Ndiaye moom it mi ngi nii toog bokk na ci sëriñ Xaadim moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Saalih dina yegg si léegi incha allahu taala di bàyyi xel sëriñ mos euh, sëriñ Mbacke Diop moom itam mi ngi nii toog ñu koy ziare te di ko ñaanal jàmm bokk na ci itam sëriñ Mam Mor Mbay Siise loo moom it mi ngi nii toog waaye di beral ak cant tànn wu tànn ñàkk sikk ndax Moustapha la tudd sant Seck kon moom itam ñu ngi koy nuyu te di ko siyaare di ko jaajëfal ci loo xamante ni sëriñ Moustapha ci boppam moo yeggale loola ngir ñi sant ko gërëm ko ci taxawaay bi kon ñu ngi koy santaat di gërëm baax mbokk yi ngir njëkkanteeg waxtu wi rek euh, ni ma ko waxee léegi sëriñ bu Jóob saa bu duggee ci sëriñ bi du ñu bëgg sax mu daaneel waaye tey mooy fi suñu imaam ñun ñëpp kon dañu koy daal di jox kàddu gi teeg moom bu nuyyoo nag mu ànd ak indil ñu fàttali ñu tuuti ci jëmmi ku tedd kooku sëriñ Saliou ngir ñu gën a mën koo teewlu bu baax attentivement. nuyu kilifa yi nga xam ni ñoo fi teew yëpp ci sëriñ Afiya lim leen léegi ñu bañ leen limaat ndax euh, njëkkanteeg waxtu wi waaye noo ngi euh, nuyu di ziare ki nga xam ni mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekk sëriñ Tuubaa di ko ñaanal suñu borom euh, yokk aw fanam dolli ko ak wér may ko ndam ci liggéey bi muy liggéeyal sëriñ Tuubaa te te te te boole na ci ñu koy liggéeyal di nuyu di siyaara di ñaanal suñu jëwriñ Serigne Cheikh Ahmadou moom Serigne Saliou di ko ñaanal suñu borom moom borom may ko wér te bàyyi ko fi lu yàgg yàgg yàgg ba ndam li mu bëgg ci liggéey Serigne Touba mu def ko ni ko bëggee di nuyu nag ay seen i bokk yëpp yëpp surtout Serigne Touba yi fi nekk yëpp ak mboolem yi teew noo ngi siyaara ñëpp di nuyu ñëpp. Euh, mm, ginnaaw loolu jataay bi nag ni ko Serigne Afia waxee euh, jëmmi Serigne Saliou fàttaliku ko. mooy li nga xam ne moo indi jataay bi jataay bi lépp loolu rek la fàttali ko Serigne Saliou ak fàttalee ko fàttali ak fàttalee euh, moom nag kenn fàttewu ko sax waaye lu yeyoon na jataay bi bis bu bi bis bu set war na am ko organiser jataay bu mel nii ndax moom moom ci boppam projet la boo xam ne daa daa daa am njëriñ ci jamono ndax ay ay ay ay ay ay ay ay yéeneem ak i bëgg-bëggam ak réalisation am yooyu mooy yi nga xam ne mooy doxal jamono te yooyu waxtu wu nekk dañ ko war di wax nit ñi ñu di ko xam kon sëriñ Saay bi mi ak sëriñ Moustapha Diop ñi nga xam ne ñoo organisé bis bi ñoo ngi leen ci sant bu baax te leen ci soññi te buñ ko bàyyi at mu jot buñ ko mënee yokk sax mu baax na waaye buñ ko mënee at mu jot nañ ko def ndax loo am solo la ndax jëmm ngoog joo xam ne waxtu wu ne dañ ko war di wax nit ñi bindkat bu ne dañoo war a bind ndax ko ko ko ko ko ku ku ay xalaatam jéem a jëlee naa baatin ba jëlee naa Sëriñ Tuubaa ma ko jur jëlee naa yooyu yëpp waaye ay xalaatam dafa doon loo xam ne mooy doxal jamono ba ta Serigne Souhaïbou googu wet dana ci ñëw dana ci ñëw lu bari mm, bu ko defee kon euh, ñu ngi dend ak Serigne sunu rakk Serigne Cheikh Diouf muy koo xam ne Serigne bee ko yar incha allahu taala waxtaanu li ci bari moo koy moo koy doxal bu ko defee nag jëmm jooju ngir ñu waxtaan ci moom euh, aajeetul di xam le mooy kan ndax moom li ñu wax ganiyun ani taarif ñëpp a ko xam ñëpp xam nañ ko gën a tuuti man dem naa Argentine. toog fa gone goo xam ni ba muy waxtaan ci sëñ bi dama dama koy déglu te sëñ bee ko yar te gone yi mujj ci sëñ bi la waaye wax na ma fa loo xam na ma fa loo xam ne xaw ko woon sax ci bi te muy gone gu du ko wax ni mën naa ko waaye xamal ni sëriñ bi xam gi moom ñëpp def nañ ko li am solo kay kon léegi mooy xam li mu bëggoon ak ni mu ci doon tege nit ñi ñu won yoon yoowu woo yoon woo won yoon woowu nit ñi ndax woowu moo mën a defar réew mi woowu moo mën a defar nit ki addunaam ak àlaxiraam ne ci kum takkool ba ba ba bàyyi la ki mu takkool ba bàyyi ko ba yeewi ko kooku exemple lay doon ci diine exemple lay doon ci àdduna ñaari fan ñaari fan yi yëpp da ko goo ci dugg ak moom da da da koy xam noonu nag lay def nit moom day defar ni di yar ko xamal ko boroom xamal ko àdduna ndax àdduna it diisu ko sàggane diisu ko wacc waaw diis na ko nag bañ a faale waaye di ndax moom ci boppam kuy xam àdduna moo la ko gën a xam saa su ko yàlla xiiree ci waxtaan ci ci ci plan àdduna bi géographique ak i nangam ak nangam ak ak ak biddiw yeeg weer bu ko ci yàlla xiiree da ngay defee ni kii du ndax lim ci xam yaatu na yaatu goo xam ni te lépp nag noonu la ko xamee lépp lu mu xam lu noonu la ko xamee euh, ba noppi nag teg ko fee nag ku ko gis euh, alaaj may sa sek rahmatullahi alayhi ko yeew géwër bu yeewu woon la yeewu te xam jamono te jàng dama daan dara ko xorom woon la dama daan eh. sa waa ji këmmam ji ku ko jàppee dana la dana la bett de dana dana la boo ko gisee defee na xamul dara ci àdduna te ñi xam àdduna di leen ko doon jàngal bokkam yii mm, kenn ku nekk mm, am na kilifa goo xam ne dafa wax doomam ne ko kilifa gu mag la ci ñu bokkal doomam da ñëw mu ne ko foo demoon mu ne ko dama siyaare ji woon sëriñ diw maanaam mu ne ko addiw kooku seen waa yooyu xamu leen ko waaw kooku day boobu Abdou Diouf kooku de ngóor si yor réew mi moo ko dàq yor moo noonu la mais te loola mooy li wér lépp lu mu doon lu ne moo ko dàq kumu ah, te ba noppi nag ne cal nda dégg noonu nag bu jàppee nit noonu la koy def dana ko yee dana ko yar dana ko defar dana ko xamal diineem dana ko xamal addunaam ba wàllu diine du ca gàkk du ca du ca laaji adduna it kenn du ko ci nax noonu noonu lay defar nit loolu nag projet yooyu nag xamal ko nit ñi. mooy li xam ne Serigne Saliou ci jamono ji ñu toll loolu lañ soxla waaye doo xam jëmm joo xam ne jëmm ji bu ñu xasee ni Serigne Saliou ñëpp a ko xam ñi jullit ak ñi dul jullit te ñi murit ak ñi dul murit gone ak mag góor ak jigéen gone yi ak jigéen ñi day mel ne sax ñoo gën a xam Serigne Saliou jamono ji ñu toll ndax bëgg gi ñu ko bëgg mu jaral leen di ko gëstu di ko gëstu ba tax na ñëpp a ko xam waaye nag bu ñu ko xamee ba noppi nañ xam nag lan la bëggoon loolu am solo loolu mooy li nga xam ni moom lañ bëgg a waxtaane li nga xam ne moom la doon defee ndax dafa amoon liggéey boppam boo xam ne tax na mu sàggane lépp lu dul liggéey boobu ndax bi may yóbbu got maa ngi koy wax léegi bi may yóbbu got mm, bi ne ba egg bi ma wooyee ba bañ toog bi dañu ma fii li ma la fi indee laa bëgg nga xam ko daal ne li ma la fi indee mooy sama liggéey mooy jàng jàngale ak yar loolu dong lañ ma def loo woon adduna nag moo ma dab ñett ma ba mënatuma ko ma bëgg nga féete ma ci daal di may wax ne lu ci dolli ko rek damaa dab waaye lii rek lañ ma liggéeyle woon muy jàng ak jàngale ak liggéey loolu nag réalisé na ci réalisé na ci loo xam ni loolu moo mate woon nit ñi loolu mooy li nga xam ne moo indi jataay bii tey ñu xam le kan mooy Serigne Saliou lan la bëggoon nan la doon defaree nan la bëgg nit ñi mel ni buñ ni melee incha allahu taala réew mi dana jag te ku ni mel ku ne àdduna dana jag sa àllaxira jag te defaram moom rek mu mën defar réew mi ndax am réew euh, xam-xam yoru ko ak juba ko yor am lu ñu xam-xam yi bari bari bari te njub gi amut réew ma da dox lu xam-xam yi Sénégal kenn ëpp ko ay jàngkat waaye rek lu ci des rek ci njub yi la dese njub googu nag lay def ci nit ba nitam foo ko fekk loo ko dénk mën na ko saytu ba mel na nga bëgg te te te te dara dara du la ca naqari te wàllu diinam dara du ca yàqu ndax moom daraan wax ni ab taalibe daa war a man daa war a man lu ne na daana wax ni biir kër Sëñ Tuubaa gi tol nay jamono lu ñu soxla duñu wuti ku koy def lu ñu soxla rek mi ngi ci dongo yi lu sëñ bi soxla mi ngi ci dongo yi jaafira daal moo ma ne diw moo daan defal jaafira yi te bu ma saan defar jaafiraam buñ ko gaaralee ñëpp dañ koy seetaan te ci donc doom yi soxna yi la ñi mu yar la bokk diw moo daan moo moo moo daan ministre nga xam ni bu defaree ba bàyyi te lépp ci biir kër gi lañ koy def lu mu doon lu ne dina mu ne ma këruk murit nag noonu la war a mel nga xam ne noonu la doon moom ba fi nii daaraam biir daaraam loo soxla ci xeetu métier ak xeetu nit ku génn ci daaraam mën na ko te ñi ci gën a bari ci biir daara ji lañ ko mënee ñu bari ci biir daara ji lañ ma damaa euh, damaa ma am ngóor suma mm, sa mm, bi bi ak tëbës keeg mu daa di léeb machine dem engagé ñëwi réew ñëwi dëkk ba man ko waaw yow lii ngay def lu mu doon mu damay damay ñëw dëkk man ko yow foo ñëw mu ree daa dëkk ba mu ne leen kuy andi sam ñaw na nga andi na nga andi modèle ba nga bëgg mu mel ni nga xam ne bu ñëwee da koy teg mel ne ku sotti mbind te bu noppee mooy dàq booba ñoom waa dëkk bi yëpp dañoo maase ci moom moo dàq ñëw ko te jànge wu ko fenn boobu mi ngi ci boobu mi ngi ci daara ji loolu noonu la sëriñ bii def nit lépp xeeti métier yëpp yëpp ya amoon ci biir daara ji te ñëpp ci biir daara ji dañ ko te loolu lépp ci barkeem ak barkeem sëriñ Tuubaa ba nga xam ne moom la doon roy bay wax ni këru murit lépp lu ñuy def dafaa war a am noonu la roon defar nit kon bu ñu jàpp ni Serigne Saliou da doon defar nit rek ngir ngir ngir ngir diine déedéet da koy defar ngir diine ak dunya diine wa dunya kenn du leen tàggale wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayka wala tabghi al-fasada fi al-ardi ku mu defar ku ne noonu lay mel ba tax na loolu nag nit ñi xam ni kooku moy kooku noonu la meloon noonu la def ci nit loolu mooy andi moo andi jotaay bii tey kon xam naa foofu la ñuy eh, taxaw sëñ affaire dañ doon ubbi rek bu ko defee boo joxe sëñ Diouf sa sëñ Cheikh Diouf nag loolu dana feeñ boo joxee sëriñ Souhaïbou loolu dana gën a feeñ wasalaamaaleykum wa rahmatullah allah barakallah bismillah bismillah jërëjëf sëriñ Habibou Diop moom sëriñ Mahamadou Lim Diop dagg na ni ma ko waxee léegi eh, muy borom xam-xam yaakaar naa defar na jotaay ba noppi ci li nga xam ne ubbi na ko doy na sëkk ku bëgg a xam kan mooy sëriñ Tuubaa sëriñ Saalix toolu sunna ak jàmbar ji ah, jàmbar jàmbar ji ànd ko fit ak xol bu rëy te rafet moo mën a dékku sa bis yeeg bis yi ñëw ci kanam tollu su naag farataak mando bi moo ko fi bay yenam ba diis na te sooxul kenn du làqu lefam sariwaat ak xaaj mac soob ga lenn desul si siggal ne diine ji si gël yoon wi yaa am ndam mboolem garar yi ñu góor yàlla daa ko na moo ràngoon na yëpp di way yow yaa jubag sa borom la yàlla soxla ci nit moom lay defar ba mu jag ba mu weesu yàqu mu fab delloo ko muy ko ñu xam Saliou mu defar gu rek mooy la ko saf ndax nit lu dul ruuga muurum suufa foofu la jëm defar na junni bi junni ruu defar bu rafet sellal ko bañ seexlu luy bon bon yi ak lu tilim sëriñ seex yaakaar naa nii la sëriñ bi la mu doon waxtaan wu am solo da daal di jël kàddu indilaat ñëw ab yaram ak pédagogie bi nga xam ne moom la doon jàngalee ci ab yaram ndax looloo jaaxal ñëpp ni mu doon yare dafa mel ni mësta am ci àdduna sëriñ Cheikh. di ñaan suñu borom mu delloo ñoo fayal a Cheikh Saalihu Mbakke ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam te di leen ndokkeel ci jotaay bu tedd bi di jiital ci nuyoo yi nag sëriñ Mountakha mi su nekkal sëriñ bi di jiital ci nuyoo bi itam sëriñ Cheikh Ahmadou Mbakke bi nga xam ne mooy suñu jëwriñ di suñu sëriñ nga xam ne lañuy def lépp moom lañ koy defal. moom mbooleem ñi nga xam ne ñoom la bokkal sëriñ bi di nuyu itam suñu Xabibu Jóob mi suñu wet di suñu sëriñ di suñu jëwrin ak ñuy seqal jotaay bi yëpp suñu son bu Siise buñ leen tuddee mu doy ñu teg nu yooyu yëpp nag ci loxol sëñ Moustapha Diop mi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci këram muy taxawal jotaay bii ngir di ko delloo sëriñ bi njukkal ak xam ne li suñu Abibu Diop waxee ne sëriñ bi lenn lu nekk wane na ci aw yoon ndax moom jamono jamono la doon defar si mu jaddid la mu jaddid nag mooy koo xam ne fànn gu ne xàll na ci yoon wax na ku ca jaar danga nga boole adduna ju jag ak àllaaxira bi loolu mooy mat gi bi ko yàlla def loon mu mel ni nag tasaare loolu ak di ko waxtaanee àggale ci ñu ko xamutoon ak fàttali ñu ko xamoon loolu moo njëriñul jotaay bi ni ko sëñ Abibu wat ubbee léegi Serigne saali moom ab liggéeyam moo doon jàng ak jàngale ak yar yar nag dañuy yar nit ki ci loolu mu jàng mu di ko dund di ko jëfe waaye yar nit ki ci nangoo liggéey ba am ngor mën a sàmm jub gi nga xam ne moom suñu borom soxla ci moom moo indi liggéey bi leen lu nekk danañ ci dikk sëriñ Saliou ab yaram yitte ji ko yitte ji ko tungoom moo moo yéeme mm-hmm. te yitte waa tasawuf dañuy wax ne alhimmatu muntahal iraada maanaam nit ki li mu bëgg bëgg faa àgg bëgg faa jëm bu fekkee am na yittee na lu métti métti dana xuus ba àgg ca kooku mën naa réussir lu ne ci kaw tax Serigne Saliou nga gis mu àttanoon nga xam ne li mu bëgg ci yar ak jàngale ak ak da ko jaraloon lu nekk yitte jitte ji ko laloon yitte jooju nag saa bu ko nit ki xasee am léegi jaar na ci yoon woo xam ne nii lenn lu ko mën a tey àgg jëm du am sëriñ bi yitteem da ko sosoo ndax ku xam na sëñ Touba mi ko yàlla jaarale ci moom yitte jëm defoon ci tànnal ko waajur wu jigéen rek loolu ci li ko jural yitte jooju bokk na ci moom itam yitte ji da ko gimmiwaale ndax sëriñ bi liñ gën a mën a xam ci nit mooy jàng ak defaru loolu bi mu dalagul jàng la feeñ ci moom ci fan yëpp ni mu feeñee ci moom mooy am na yittey Serigne Touba ci njaareem bi mu doon tu tànk dalagul jàng Serigne bi wax ne xasiida sangam ku ko mokkal dig la nangam ak nangam mu def yitte doon tu tànk ba noppi mokkal ko muy xasiida ak fini foofu la yitte woo kon xam-xam njëkk a feeñee ci moom goo xam ne da ko gimmiwaale waaye yitteem ci defaru ak liggéeyal sëñ Touba wax nañ ne bi mu demagul daara nekk ci njaarim itam daana def bu ko nit joxe aw ñaar dërëm wala juróom day bàyyi ba sëñ bi ubbi mu dem jox ko ko ba benn bi sëñ bi laaj na ko loo ci jublu ko damaa gis nit ñi di ko def ma xam na lu baax la nga xam ne kon loolu da ko da koo mu yitte jooju loolu nag du du du du yéeme ndax sëñ Touba daa wax ne fa aali himmataka fi umuuri dunya wa uxra taxsabil ujuri wala tualliqha bi shay'in fi zaman min an naqaa'isi bi sirrin wa alan sëñ Tuubaa nee na boo mbiri àdduna ak alaaxira yëpp da ngay fexe ba am ci yitte ju moo tax yonent bi na woon alaaxira da jaamu yàlla lañ fay jëriñoo da ngay jaamu yàlla ba mel ni amoo ci soxla àdduna waaye àdduna itam da nga ciy nekk bañ jàpp ne xanaa kii sax tëluta jaamu yàlla moo tax ñaari tànk yooyu nag mooy li suñu ëbiwu doon wax nga xam ne sëriñ bi ak kamaliya muy ak mat moom la donne ci sëñ Tuubaa loolu it la ko sëñ Tuubaa doon liggéeyloo ci ñi nga xam ne ñoom la yàlla tegoon ci loxoom ndax sëñ Tuubaa daa wax ni mbiri àdduna yëpp nanga nga def sa ba lenn lu nekk na nga fa siyéne bokk ca ña ci gën a kawe mbiri yi tam muy cër yaag jaamu yàlla gaag njub gaag baax ga ak amal njëriñ nit ñi loolu it na nga fexe ba bokk ci ña ci gën a kawe bu boobaa nag loolu muy jur bu ëllëgee nga am ndam yi nga xam ne moom la siñ Tuubaa soxla mbooloom di ko am ëllëg waaye Sëriñ Tuubaa daana wattandiku lool lool ñàkk yitte ak ñàkk gis-gis bu suufe Sëriñ Tuubaa noonu la meloon dafa daan wax suñ boroom ne ko waxtar liyal ahsana fii kulli layaan hëbliya xayral xismi fil maqaasimi wala zawid diine bi jaahil qaasimi nga xam ne bu mu door a jóg daa wax ne suñ borom cër ya gën a rëy laay laay wut len luy nekk itam tànnal ma ca la gën a rafet kon Sëriñ Saaliw noonu la yitteem jooju loola ko waraloon ñett yooyu nga xam ne moom si ébi bu wax rek ci laay baagante yar ak jàngale mm-hmm. ak jàng mm-hmm. sëriñ bi moom ku ne xam ne xam-xamam doonul lu ñuy yor lu ñu te loolu it lu mat di fàttali la ndax ndax njariñ ndax jëriñoo guñ ko mën a jariñoo mm-hmm. ndax moom bi mu xamee ne sëriñ bi da leen a bëgg ci ñoom am njàng dajaa def yitteem ba muy alxuraan ji ko tàmbali woon mu àgg ca fam ci war a àgg ci diir bu gàtt defoon ci yitte jëm ci war a def yëpp la ca topp mu xam-xam loolu it mu def ca lam ca war a def lépp ba def ci sax anam gu yéeme ndax sëriñ Saliou am njàngum xam-xamam mi ngi tàmbalee fii ci Touba mos na ma ab topp ci Tindoodi njaareem bokk na ca Mbakol nga xam ne daana xëy war aw fasam ci Mbakol di jàngi romb ci dëkk yu bari dëkk bu ne mu borom xam-xam nekk fa mu jaar mu jàdd fa wut fa xam-xam. ka koy jàngal itam jamono yooyu àllarba ju nekk dana fexe ba jox la juróomi dërëm nga xam ne kon fàgg gi doon fag fàggoo barke ak yitte ji mu amoon ci li mu doon def ni ko ñore ginnaaw loolu it xeeti xam-xamu suuf yëpp xamlu na ko xeeti waxtu yi xeeti yëpp xamlu na ko nam ko war a xamloo loolu it la waraloon mu di ko laytaay mooy daa aju woon ci ab liggéeyam ndax ku ne xam na ne yar daa laaj am suuf su yaatu su soo xam ne day sori li aju ci jaxasoo ak yu ni demee ak yi nga xam ne moo indi ndax naxi àdduna loolu nag moo tax mu doon fàggu loolu ba jamono yooyu ñu bari nañ ko wax ne ko sa nii nga sonne ci yër ay téere gëstu bi daal mu ne àdduna daa gudd ab tànk man ngaa dem ba jëmmi jamono lu ne mu dele ko laaj dama bëgg a waaj waajtaay woo xam ne nag lu àdduna gudd gudd lu ma fi yàgg-yàgg laaj bu ma indi noonu fekk ma mën koo tontu noonu la doon fàggoo xam-xam loolu it lu mat bàyyi xel la moom am njàngam ci xeetu xam-xam yëpp waxuma la xam-xamu diine waaye xam-xamu adduna rek ni ñu waxee ne boole diine ak sëñ Saaliw xam-xamu adduna bii ñuy jàng ci ay suuf yeeg wàllu plan yu demee noonu maanaam ñi ci am ay diplôme yi gën a kawe daanañ ñëw di ci waxtaan ak moom mu di leen ci yéem ba dañ koy wax ne ko sax xanaa foo jànge wala wala wala wala ba ku ne dégg na digganteem ak Cheikh Anta Diop mi nga xam ne ba léegi ñi gën a rëy xam-xam moom la ñuy yéem kon a xam na ne digganteem ak Serigne Saliou lii leen jaxase woon lépp waxtaan ci xeeti xam-xam yu xóot yooyu nga xam ne lu tumuranke woon ci réew mi la rawatina ak ci Afrique kon loolu ku ne xam na ne xam ni mu daje adduna ba noppi daj diine léegi xam-xam boobu nag def gi ko war a def ci ñi ko yàlla booleel ndax nee na dañ Sëñ Tuubaa lim lim ko digal mooy mu jàngale ak di yare njàngale moomu bi nga xamee na xam-xam bi noppi na ci ci la daal di tàmbalee sampu ay barab ngir di jàngale jàngale moom it moo ko daan def ci loxol boppam ca njëlbéen ga di ko def ci loxol boppam xam nañ mag ñu bari ñoo xam ne ñu jiitu woon ci daara ji sëñ bi mool jàngal na leen ba ci àlluwa yi sax da daan dañ daan dem tool ñëw fekk mu bindu bindal ko boppam waxuma la alquran jeeg xam-xam waaye njàngum xasida mi sax da ko daan def ci loxol boppam bari na ci mag ñi ñoo xam yor nañ bind yoo xam ne sëriñ bi leen ko bindoon ngir di leen ci jàngal xasida toole itam buñ demee muy dagg ay sas nga xam ne lu ci nekk rek daa wut toog rek bàyyi ci nit ña waaye da daan wax na yoon wi du yoonu dem leen waaye ñëw leen ñu dem la kon loolu yi bokk na ci li ko may xarañte ci ab yaram ndax nit ñi saa boo leen waxee ñëw leen ñu dem ànd koog ñoom nekk ci seen kanam loolu dana dana leen dimbale te dama na ñedd seen yitte ba mën a àgg fi nga bëgg ñu àgg fa kon bu dee jàng nag ak yar lépp am yàlla rek lay jëriñ ak xol bu leer ndax suñ borom daa wax ne yowmal xiyaam lenn rek fa am njëriñ mooy indi fo xol bu xol bu mucc xol boo xam ne set na wecc leer na nañ ngërëmul yàlla mën caa dugg te ngërëmul yàlla yooyu mooy tax a am àjjana mooy tax a maye dara ay darajaat ca àjjana ak nañu rawantee léegi kon njàng moomu nga xam ne ak leer la war a def faw ñu wut wutal ko ay jumtukaay ndax defaru xol daa am jumtukaay yu ñu koy defee jàngale ci la bokk alquran daa doon leer goo xam ne day leeral xol képp ku yar li tax nga di ko jëfandikoo mooy ngir ñi nga yar ngir seen xol leer ñu xam li ñu war a xam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa wax ne alquranu huwa nuurul mubin wa siraatul mustaqim alquran mooy leer gi nga xam ne mooy leerale alquran wax na ko ca biir xadu xad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubin yahdi bihi llahu man ittabaa ridwanahu subala salaam alquran mooy génn nit ki ci ak lëndëm yóbbu ko ci ak leer moo tax Serigne Saliou am njàngam alxuraan moo ci jiitu woon ngir ki muy bëgg a defar leer gi soxla ci moom am na ci loo xam ne ci alxuraan lay bàyyi ko dugg ci ab xolam bu nappee ci alxuraan ji mu teg ca njàngam xam-xam xam-xam itam ku ne xam na leer la sëñ bi nee na al ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahu nuurun maa diraaya xam-xam du jaage ne mooy xam li ci téere yi nii mën ko nettali waaye xam-xam la tax ñu xam-xam leer lay doon goo xam ne dugg ci sa di ko defar di ko setal ba ëllëg yomal xiyaam nga mën a indaale la nga xam ne moom dong moo fa am njëriñ kon loolu taxoon na xasida yi itam bokkoon ci lu mu fonk lool ci di ko jàng ka mokkalee ko yëkkati te loolu it ak leer la goo xam ne leer leer gi ci nekk moo tax ñu di ko jëfandikoo ndax Sëñ Tuubaa nee na wajaal tawaalifiya anwaaran tanuur saatiatan bi xormatin nuurin mubin sama taalif yi yow suñ borom na nga ko def muy ay leer yoo xam ne day jolli di leeral ay xol wa wajaal fu fuyuda kalkali munira xuluuba xisbika wa astia nuura kon ba tey loolu taxoon na léegi nga ñëw ci liggéey bi xam nga liggéey la nga liggéey ci tuur saw ñaq bu fekkee yàlla dong nga ko tax a jug wala ci lu jëm ci yàlla la jëm loolu dara gënu ko mën a leeral xol dara mën ko gën a gaaw a defar nit ndax Sëñ Tuubaa ku ne xam na ne liggéey gi na liggéey Yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ca ne xidmatuhu anil uyuba ashëbat wal istiqaamatan wa safwan wa hëbat liggéey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na day defar nit ba dindi ci moom ay ayib may ko ak sell may ko ak sax ci am njub kon looloo taxoon sëriñ bi liggéey bi itam mu defoon ko noonu liggéey bi mu dugal ci xereñ gi nga xam ne bokk na ci li ko may ndam bi muy liñ daan liggéey fi mu ko daan dugal nga xam ne li tàmbalee ci bi mu nekkee mbaakol di fa sàkku xam-xam ay 1931 du ko sori booba nga xam ne xam-xam bi sax àggugul ci la fa doglu ay tool ca ndukkumaan jeng bay fa fukki kuley gerte ak ñett bay ma barkeel lool waaye jëriñoowu ca dara waaye loola jëriñoowu ca dara lépp daf ko jël jox ko Cheikh Moudou Moustapha mi nga xam ne moo fi nekkoon mu def ko ci liggéeyu bi nga xam ne moom la fi Sëñ Tuubaa bàyyi woon kon loolu tax na ba liggéey boobu mu doon def ci tool yi nga xam ne ci la fàggule donge yi ñu doon nit ñu am jom doom nit nit ñu nit ñoo xam ne ñu mën a déggoo lañu ndax liggéey bi da ko laajoon xam nga boo gisee suñu ëpp yi wax ne léegi lu yéeme dangay gis dong bu newoon ci tool ya génn fa man lu nekk xam nga lool li ko waral mooy man lu nekk moom ci xel la aju liggéey bi nag day tàggat am xel day defar am xel ba daanaka loo gis man koo man koo toppandoo ba man ko comme ni nga nettalee ci kooku nga xam ne day gis ñaw yi ñu wan ko plan bi rek mu koy toppandoo rek ba man ko fi ne loolu xel mu ñaw mi ak xol bu set bi nga xam ne mu nekk ci yow moo koy waral man mii ma sama ànd ak sama benn mbokkum donga ñu dem ci koo xam ne métier mañ ko fekk muy liggéey da ca am lu ko ca jaaxal lool tëkku ticc kooko daa jël rek daal ko koy defaral ci diggante bu gàtt gàtt gàtt gàtt ndax léegi xeeti mbay mi nga xam ne moo doon def ci tool yi dafa ma doon lu barkeel a barkeel loo xam ne day ubbi am xel ndax bay daanaka xeeti métier yëpp dugg na ci biiram am na kilifa adduna gu ma sa wax sëñ Saliou ne ko dañoo waroon def ay formation ci daara yi buñ génne ñu mën a am métier sëñ bi ne ko daara yi da jàng lañ fay def ak liggéey jàng nag ku ko def da nga xam bu dee alxuraan la sax moom ku ko mokkal da nga weesu ak torox daana ko bu dee liggéey itam yéen ñi seen xam-xam màcc ci àdduna yéen a wax ne mbay moo gën a gaaw ci suqali am réew ak àdduna te liggéey boobu lañ fay def kon day mel ni dañoo xool li gën a mën a li gën a tënk liggéey yëpp muy mbay sëñ Tuubaa joxañ leen ko ñoom mag ñu ñu nekkoon ci fi ne nii jamono yi ngay bay damay wax ne liggéey moom munta paase liggéey boo xam ne danga koy toog lañ koy defe ak boo xam da ngay taxaw wala boo xam da ngay sëgg te ñett yëpp mbay tënk na ko mbay am na jamono yoo xam ne da ngay dox kooku sa yaram dana sawar ci wàllu dox ba leneen loo gis nit du ko def tam aju ci loola boo ko xoolee ñaari fan man man man ko liggéey liggéeyu mbay am na foo xam da ngay da ngay foo xam da ngay da ngay sëgg kooku da tàggatu ci sëgg ba lépp lu ñuy def te sëgg man ko boo ko gisee da nga mën a def am na foo xam ne nii day toll ci da ngay taxaw yéen ñi yéen kon xam nga xam nga jamono yu ndéqi ba ma saan ci daara ji da nga yaakaar ne fii ak tëgg la kéngi mm. kéngi jéeg dàgg yi loolu ku ci jógee at wet googu loolu ay të jamono yi ñuy defar ngédd yi dugg àll bi gor gor da ngay jàpp jàpp na ñii moom ay ministre ay ministre yu taxaw lañ léeg nga yor ab machine nekk ci àll bi di liggéey ba yàgg ak weñ na ci collecte te gisoo kenn ku la ko ku ko jéemal da jéem a xalaat di nàccal sa xel nàcc sa xel mujj ba dangay ngay a dépendre lépp loo xam ne yàqu na kon loolu mooy waral nga gis ku fa jóge yooyu yëpp daal di feeñ ci moom liggéey boobu itam waxuma la njariñul adduna bi rek jaroon na Serigne Saliou di ko def la ndax liggéey ku ko tàmm foo nekk da fa mën a nekk buñ ko boolee nag defar sab xol yar bi mooy tax ba doo xeeb benn liggéey doo xeeb ñenn métier lu ne dang ko mën a def lu ne itam da nga ko mën a dund occasion ba ca gën a xéewale nag mooy mu dun jël liggéey boobu di ko def ci liggéey Sëñ Tuubaa bi gën a màgg ci liggéeyam bi te waxoon na ne taalibe yëpp ci la ñu rawantee te mooy liggéey yi fi sëñ bàyyi xam ne jumaa ja nekkoon ci bopp loola moom beneen mbir la boo xam ne mbirum biir la kon xerañ googu nga xam ne moom la ci defoon nag ak te jooju moo ko may résultat yooyu nga xam ne suñ affaire génn na génn na ko ci te it loola doonut lum yóbbaale ba léegi mi ngi ko fi bàyyi képp koo xam ne bëgg nga caa am cër ya nga war a am boo ko doxalee nam ko daan doxalee suñu borom moom du jeex du jeexal kon ñu taxawane foofu ba dellusiwaat. jërëjëf Serigne Cheikh. ñu ngi santaat bu baax tey gërëmaat bu baax ci lii nga dolli ci sëriñ bu lim indi muy loom solo lool ndax jànge nañ ci sëriñ bi ni daan bàyyee xel daa mel ni lu nekk xelam a nga ca woon ci ndaw gi ni ko waxee ni nga ko junjee ci ndaw xel muy takk la ko suñu borom joxoon loolu feeñ na ci biir wax ji moo ne noonu la daan tàggate itam ci alxuraan comme ni nga ko waxee daawut xeeb kenn ca lam nekk mel na ni bu dikkee bu laajee sax xale bu ndaw bi jàll toll ci baax wala mu toll ci ijji mu laaj ko foo toll ne saa bu dikkee day laaj nit fu mu toll ci alxuraan bu fekkee da ngaa toll ci isib bi boo demee ba yàgg bu dellusiwaatee laajaat fi nga toll dana xam njàng mi dox na wala doxut nga xam ne da ko daan jaral lu nekk xeebut sax kon ki nga xam ne da doon ijji bu ñëwee am na xale bu mas a laaj ne ko fa toll xale bi na ko man euh, sari xale bi na mu ne ko sari laa toll xeebut sari jooju ma ko wax te sari rek la ko ko sax sori sëñ bi ne ko xanaa kon miin nga jàng démb ngir ngir ngir wan ko ne ko jàpp naa li nga wax te bàyyi naa ko xel xanaa kon min nga jàng démb euh, wax nañ fi ci njurul euh, ni nga wax ci wàllu xam ni muy xoole nit ki tam ci alxuraan noonu lay xoole ci xam-xam foo toll ban téere nga wax ne ko téere sangam mu laaj la ci fit la ca ni alfiya am ko toll mu ne ko alfiya laa toll mu ne ko ci ban bunt mu ne ko inna nee na mu ne ko fu inna di nekk an na waa ji mel ni ko xaw a gag mu tàmbali moom ci toog njowaan gi di ca tari ba tari ci ñetti téeméeri bayit ci jataay booba loolu la muy tekki mooy kon junni ba yi moom peeg na ko te it lu masaa jàng da ko mokkal suñ mu dem moo ko wax dafa wax ne li ma gën a jaaxal ci sëriñ Saalix mooy lépp lu ma ko masaa jàngal moom da ko mokkal ba noppi mel ni dama ko gën a dégg loolu suñ mu dem moo ko wax euh, njaareem noonu ne boo ko toppee itam ci wàllu xasida noonu la ci mel ni mu ci tàggate dañuy toog kuréel di jàng ba yàgg mu jekki-jekki daal di ne dafa mel ni wet gi fete na le wetug wetug saalum ga am na koo xam ne baatam daa mel ni bokku ci wala tolluwut nga xam ne fi muy toog dana xam penku la nekk wala soo wala nangam buñ ko saytoo noonu lay demee mu di la tàggatam ci xaside yi euh, ba ci euh, fee ci euh, xabaan am na bis boo xam ne dañuy jàngaloo mi daal di toog ci juróom benn koñ bi dafa wax ne keroog bu ma ma taalee lamp bi nga xam ne da ngeen a juum ñu taxaw ci buntu koñ man alaaji loo ma nga ca woon ak daam euh, dam dam daam jaxate euh, sëñ Abdou Latif jaxate ñu toog di taxaw di jàng milaadi yi waaye mënuñoo fexe ba agsi ci nawaytu bi mati man attaani nawaalu ndax saa bu nu agsee ci rek rama rek mu mu daan ne tayyi torse bi ñu daal di dellusiwaat mu dugg mu daan ba tey de li ma waxoon xamu leen ko de ba yàgg moom moo toog daajal boppam diggante milaadi yi ba nawaytu ñu koy déglu nga jàng na midaadi maallahu min an naari nawaytu bi matxi daal ne dem leen xool ba xam sëñ sëñ booba sañ Mbàkke Faaje moom maga nga fa euh, daal di ñëw daan ne dafa bëgg ngeen xàmmee sadd yeeg matt yeeg lépp ramma asma samma lépp dafa bëgg ngeen xam ko keroog sëñ Mbàkke Faaje lii la wax biñ tàmbalee jàng ñu dem ba ci nabastul fira lillahi jalla jalaaluhu gis ñu làmp tàkk ñu xam ne ñu daal tàmbalee maa xam ne li mu bëggoon kon am na ñu daal di wéyal ngir kon noonu la doon toppee xaside yi ci lépp ba ci liggéey bi kal yi ngay li ngay bay ak lépp sooy bay boo defee nangam ba ci dundug nit ñi dund da ko daan bàyyi xel li nga war a boole ngir soo bañee tawat ak yu mel noonu kon sëñ bi ni nga waxee daa mel ni bàyyiwutoon dara lépp da ko doon def euh, ba tey ci jataay bi ñu ngi bu baax ci ñi fi teew nañu Serigne Bara Mbacke moom Serigne Sohaibou ñu koy ziare bu baax euh, mi ngi agsi na léegi ak Serigne Abdoul Khoudous moom Serigne Abdoul Hat moom it ñu ngi koy sant bu baax ci teewaay bi Serigne Salihu Mbacke moom Serigne Mbacke Mohamed Euh, di rakki sëriñ Moustapha Mohamed Ndombooji ahibaul Khadim li nusrati dinil xawim moom it ñu ngi koy sant ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxawu na ko suñ mbokkum dongo mi lool wax dëgg yàlla ci taxawaay bu rafet bi bokk na ci sëriñ Abo Mbakke moom soxna Bintu moom it teew na fi waaye itam sunu sang bi yegg si léegi nga xam ne buñ ko gisee rek xel demaat ci gédé damay wax ne gédé moom ku leen gedd gaañu euh, kon ñu ngi koy ziyaare ko dalal jàmm muy sëriñ Jili Buso ñaan suñ borom dellu ko tawféex bu baax a baax a baax sëriñ euh, Souhaïbou dafa mel ni dégg nga jëwriñ yi fi ñu jaar yow nag yaakaar naa ne muraaja fu la neex jaar waaye damay fàttaliwaat tuuti rek ci sa waajur wu tedd wa dama wax léegi sëriñ Souhaïbou Saalih mel ni ku gag waaye gaguma ndax sëriñ Souhaïbou Salihu Cissé ndax ñu ko seq la am na ñoo xam ne sëriñ sëriñ Salihu lañ ko xamee am ci ñoo xam ne xam nañ ne doomi Serigne Mor Mbaye Cissé la waaye sa waajur wa daa doon koo xam ne boo toogee di wax du jaaxal kenn dafa am bi Serigne Saliou jaar fa diggante takkusaan takku timis yàlla dogal na keroog maa ngi woon ci oto mu dugg di nuyoog sëñ bi ñii bëgg nootu timis xam nga ca moom ca sañ-sañ ba ak fulla ja sëñ bi jékki jeg na ko sëñ bi da ngaa defee na xawma la waaye man xam naa la de ndax yaay kooka sëñ Moray wax de na ko yaay kooka ndax gis naa kooka doonub sondeel tàkk ba ba ba jeex tàkk te gisaatuma fu mu génne teg ci ne ko gis naa kooka génn këram génn ci barabam dugg sa kër te gisaatuma fu mu génne daan na ko nag fii nag boo fi boo fi jamajee ku lay gàgganti te ñu ngi waaj a noddu timis te ngaa dem sa kër booy juum juume fa wallahi asim sëñ bi bi muy génn bay matar silla mi ngi noddu bi muy toll ci daaneel la sëñ bi gaare keroog bay cerno fal bay cerno bi ñëwee ci mbaar mi lan lal sijaada gi sëñ bi bi mu jullee sël bi mu jullee timis ba sëlmal wala les mi dafa geesu na sëñ Cerno dafa ëppam dafa yees sëñ Cerno ne ko mbàkki lépp mat na nga xam ne mi ngi naas ba xam ndax dafa julli ñaar raka wala ñetti raka yi mat na keroog sëñ Cerno kan lii la ko tontu kon xanaa wax ji sëñ bi waxoon sëñ sëñ sëñ Mor xanaa loolu delsi na moo tax ca way wa dañoo wax ne kii moo di kooka te kookaay kooka wax la ju wér ndax weddi dus du ca bokk foofu laa mën a yem sëriñ bu kon ñu dikk ak yow ci ni ngay toogee ci sëriñ bi ak ni ngay waxtaan sëriñ bi ku la gis xel yëpp demaat ci sëriñ Touba sëriñ Saliou Mbacké nga gën ñoo fàttali sëriñ bi rawatina ci ay objectif ay bëgg bëggëm daana génne di doxantu ay ngoon bu jaaree fii tey penku boo liggéey mu jaar càmmoñ boo liggéey mu jaar feneen fuñ ko miinee mu teg di jaay fekk na booba doxantu doon rek mi ngi doon xool mbedd yi plan moo ko fi dàq boo ñëwoon sax ban ko sa kër ne ko nangam mu ne boo ko defee woon ni ak nii jant bu xëyee di dugg wala jant bu bu sewut nangam loolu sëriñ bee ci man ku ne te am na ci loo xam ne suñu borom may na la nga am ci loo diisoog moom ci ay bëgg-bëggam ñu bëggoon ci dëkk bi rawatina loolu loo na ci mën a baaxee te man ci gën a jariñu ngir bàyyi xel sëriñ Saliou fi mu toll woon ak ni mu bëggee woon Touba tey mel ni incha allah bismillah jërëjëf sëñ Afia bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulilahi sallallahu alayhi wa sallam nuyoo bi moom sëñ Afia comme ni nga ko jotale alhamdulilah day mel ni buñ ñu tëddee suñu jëwriñ sëñ Abi bu Jóob siyaar ko ndax mooy kilifa jataay bi mm-hmm. dana mën a yóbbaale kilifa yi fi teew yëpp ak ñiy yëglu te ak seeguñu mm-hmm. xanaa di sant rek di tey gërëm sëriñ Abib ci waxtaan bu am solo wi nga xamante ne indil nañu ko ci sëriñ Saliou mm-hmm. te moom kenn ku nekk xam na ne lépp lu mu wax ci sëñ Saliou rek lu wér la ndax musa tàggoo ak moom ci ndawam ba ci magam. Mhm. boole ko nag am xam-xam boole ko tamit ku baax meññi ko muy Cheikh Mahamadou Lamine la daga nag xam na képp ku xam rek xam ak moom. kon ñuy wax dégg nañ ko njariñ la loo xamante ne danañ ko jariñoo waaye tamit làmmiñam bi mu jógee tamit muy doon loo dañ koy barkeeloo. Mhm. sëriñ Cheikh Diouf tamit ñu koy sant bu baax ci jataay bu am solo bi ak waxtaan bu am solo bi leeral ci sëriñ bi ci sëriñ bi ci boppam fi mu jaar ak ni mu jàngee ak ni mu jàngalee ak ni mu yare muy waxtaan boo xam ne tamit am na solo lool loo xam ne mën na koy jariñu bu baax a baax jërëjëf sëñ Xaafiya xam naa ne li nga wax sëriñ Saliou moom dañ ciy barkeelu rek comme ni ñu ko doon defee at mu jot bëgg gi mu bëgg Tuubaa moom loolu daa daa bokk ci moom. ndax ndax ndax day sëriñ bi te sëriñ bi Tuubaa rek la bëggoon. Mm-hmm. yitte jëm ci aman ak lim ko jaraloon tamit loolu du lu kenn umpale. Mm-hmm. danañ ci barkeelu buñ ci barkeeloo tamit Tuubaa ndegam ci biir réew mi la. Mm-hmm. ñu wax tamit yéen a jëm amoon ci réew mi ak ni mu bëggee woon réew mi ak réew mi tolluwaay yi mu toll. bu ñu noppee tamit barkeelu ki xew-xew bi nga xam ne daa xew ci jamono. muy ndaw ñëpp jógandoo mel ni ñi topp géej gi ñi topp mbedd yi fas yéene génn réew mi di wuti njariñ dëgg la ñu xool tamit sëriñ Saliou diggam ak ndaw ñi ndegam moom sëriñ bi rek lañu bëgg tamit ñu fàttali leen sëriñ bi ni mu doxe yooyu tamit ñu bàyyi ko xel <laughs> diggam ak Touba moom yitte ji mu ci am ba mu dooree sëñ Touba jamono gi nekk dama koy faral di nettali dama ne leen sëriñ bi njëkk muy doon sëñ Touba mën nañ ne mës a génn dara mës a génn sëriñ bi waaye nag ndegam daa amoon ay kilifa ci liggéey boppam la nekkoon liggéey boppam mooy lan mooy samp ay daara alxuraan ngir màggale ko way juróom wu tedd ba mi nga xamante ne daa yéene def métier jàngale te am ci gàllankoor moom mu fas yéene loolu nag mu def ko muy ndigalam di am di mbiram fas yéene tamit tàggat doomi jullit ñi ak doomi taalibe yi ñu ko jox ànd ak ñoom dugg àll bi hmm. di toj ay njëndi di fa liggéeyal yàlla waaye la mu fay liggéeyal yàlla lépp tamit da koy delloowaat ci ay kilifaam yi fi nekkoon ku fi mën a nekk sëñ mas a nekk sëñ lu mas a liggéey jox na la ko sëñ Abibu Jóob mii nett la nañu fi daaw lu am solo nee na Alaaji Maysa Sekk ca cees moo ko nettali hmm. ca jamono yu yàgg yoo xamante ne ni kenn mënta bay fukki barigo nee na booba sëriñ bi peese na junniy ko Cheikh Serigne Fallirou Mbacké def ko ci liggéey sëñ Touba bi kon loolu kenn ku ne xam ne ne moom fi loolu la sa nekk waaye nag ba mu ñëwee ba doon sëñ Touba li ñoroon sëñ bi nag li ki sëñ Saliou def nag moom kenn ku nekk mën na cee teg bët damay wax ne daaray alxuraan yi niñ toll ci Touba njëkk sëñ bi di doon sëñ Touba jumaa yi ni mu fi tolloon njëkk sëñ bi di doon sëñ Touba njàngum xasida ni mu fi melan njëkk sëñ bi di doon sëñ Touba ak bi sëñ bi dooree sëñ Tuubaa ba di dem àjjana na yooya ñett yooya mel ci dëkk bi <laughs> kenn ku ne xam ne na bay na ci waar woo xamante ne nii kenn xamul nu mu <laughs> ndax sëñ bi njëkk muy nekk sëñ Tuubaa jumaa yi ci dëkk bi dañ ko doon lim dañ naan jumaay Tuubaa ne jumaay Daaru Xuddoos ne jumaay Gede ne jumaay euh, Daaru Xalimul Xabir boo ko limee daanaka du mat fukki juma. yooyu yëpp jàkka la mhm. mu ngoog nag kon sa gabi mi ngi noonu. mu ngoog waaye nag sëñ moom bi mu ñëwee yor liggéey boobu fas yéene koo yeesal ba mu fiy jógee lu ëpp ñaar téeméeri juma am na ki dëkk bi yu julli aj juma. Mhm. kon kooku kenn ku ne xam na ne moom xam na ab cëram te liggéey na ci liggéey boo xam ne ñëpp teg nañ ci bët. Mhm. njàngam xasida dañ daa wax waa kër sëñ Abdou naan waa kër ma sàmba waa kër waa waa waa Daaru Muxti nga xam ne ñooy jàngkat yi siiw yi nga xamante ne nii ñoom lañ daa ñoom lañ daa wax waaye sëñ bi bi mu ñëwee ba soññi murid yi ci jàngum xasida tasaare daayira yi nga xamante ne nii ngir sawarloo taalibe yi boo ñëwee ne ko sëñ bi turu daayira lu mu sonn sonn lu mu mën a def day daal di jóg jëlu kayit jël big bi ci loxo boppam bindal la turu daayira ngir soññ soññ taalibe yi ci ci loolu léegi xoolal nag sëriñ bi moom bi mu fi bàyyi ko di wégi suñu borom njàngum xasida nu mu mel ci réew mi <laughs> ndax waa Sacré-Cœur waa Daaru Musi lañ leen a jàq dàq jàng déedéet waa Kër Sëñ Masamba ndax dañoo dàq jàng waa Yoof déedéet foo dem ci réew mi fu hmm. nit jëkkati xasida rek dangay jàpp na ci kuréel yi njëkk njëkkee la woon loolu nag loolu waaye mën a wax loolu ab liggéeyam wallaay wallaay ndeysaan njàngam alxuraan. Mhm. kenn ku nekk xam na ne sëñ bi moo doon moo doon moo doon moo doon léppam sëñ moom daraam gënul alxuraan. Mhm. waaye ci na mu tedd ba. Mhm. waaye nag sëriñ Saliou lim def ci njàngam alxuraan nga xamante ne dañ ne ba nga fi bàyyi ko bàyyi nga fi lu mat ñaar fukki daara ak juróom ndax xel koom rek fukki daara ak juróom la nga boole daara yi ci sowu ba boole daara yi ci penk bi boole daara yi ci biir Touba ñuy jàng alxuraan. yemuñ ci jàng alxuraan nga di leen dundal di leen takkali soxna di leen ngénteel mm-hmm. di leen faj waaye loolu nag ndax kenn mas na ko def amul ci àdduna ci àdduna wallahi wallahi wallahi ak maanaam soññ gi mu soññ nit ñi ci bëgg alxuraan woote bi mu woote toole bi yëpp na indi leen gone yi loolu nag gis ngeen résultat bi mu jur tey ci Touba mm-hmm. ak ci réew mi ba njàngam alxuraan ni ko ak ñëpp fabuwaate fonk ko te loolu tamit liggéey na ci liggéey bu am solo waaye nag dëkkub sëñ Touba yi nga xamante ne mooy Touba damay faral di wax ne sëñ bi bi muy ñëw Touba dafa amoon lu ko tënk tënk bi gën a mag mooy dafa am ay quartier cosaan yu fi nekkoon yoo xamante ne ñooy dëkk bi da nga naan Daaru Xuddus Daaru Minnan ne Gédé Sura wax ay quartier quartier yoo xamante ne quartier yoo xam ne dafa am fu mu tàmbalee woon rek waaye amul fu mu yem. maanaam daar xudóos day màgg rek lu fa sës rek mu yokk ci muy daaru xudóos daaru minam tamit day màgg rek mhm. lu ko sës rek yokk ci di daaru minam mhm. genne tamit day màgg lu ko sës rek yokk ci di gënu mhm. waaye sëñ bi ñëwee a def mooy quartier fekk da leen faa yemale xam ne moom quartier benn màggatut sos ay quartier yu yees sose la ko ci ñooñu tudd ko ay tur yoo xamante ne nii li sëñ Tuubaa defoon nga xamante ne nii bi mu ñëwee tur yu baax moo ñu ko tànnal am na tur yoo xamante ne nii kenn daaw ko dégg njëkk moom moo ko tasaare ci réew mi muy turi lislaam li sëñ Tuubaa doon def dëkk yu baax kenn ku ne sa dëkk da nga ko naan tuddee daaru nangam boo santee Jóob ne daaru Jóob wala nga ne kër nangam Jóob wala kër nga ne Njaay mm-hmm. waaye nag ay dëkk yu baax nag Touba daaru mën naan daaru mën naan maanaam loolu sëñ bee ko indi ci ci ci ci ci ci ci réew mi mm-hmm. sëñ bi nag quartier yooyu yëpp nag mu yaasal ko ba ci bii ñu toll bii ñu nekk ci la bokk mu tuddee ko jànnatu naxiim mm-hmm. gis nga tur yu rafet yooyu leneen lim solo seen indi nga xamante ne bu ko sëñ bi defutoon tey jii jafe-jafe bu mag dina am mooy quartier yooyu yëpp nag ña fa nekkoon def ko xalif général de Mouride moom yoonam newu ci woon ndax quartier bu nekk amoon na borom waaye nag sëñ bi quartier yu bees yi mu def nag moom ku fi nekkal sëñ Touba rek yaa yilif quartier yooyu nga sañ fay def sañ fay dindi sañ fay yokk sañ fay loolu nag tey bu amutoon tey ci dëkk bi kon tey fu waa dëkk bi jëm ñor gi mu ko ñoroon nag ñor gi mu ko ñoroon nga xam ne loo xamante ne nii dama koy nettali ndax toujours nettali day am seere mhm. bi dafa am ay xàll yu rëy booba autoroute bi nekk fi nga xam sëñ bi ni mu bàyyee xel jamono booba autoroute bi amagul woon ay suuf yoo xamante ne ay nit dañ koo dëkke woon mu ne nañ ko nañ ko nangu ndax dañ faa war a def rond-point yu mag ndax ëllëg si biir xàll wiy jógee ndakaaru foofu lay jaar si mm-hmm. am ñaari kilifa yu ko moom kenn ki sëñ Mbàkke soxna loola kenn ki du ma tudd turam ndax ñoom ñaar nañ nañ doxale ca yónnent ba daa bokkul sëñ bi demee boo demee nga ne sëñ Mbàkke suufam soose day dama ko dama koo bëgg a wàññi ndax dafa xam lu ma fay waajal yoo xamante ne ni ay ay ay ay autor ay ay yoon yu mag yu ñëw ëllëg la mhm, mhm, mhm. fekk boobu sëñ Mbàkke soxla la ko ñu wax sëñ Moor ñaan la dénk quartier mooy bàyyi Abdou Fatah ñaan Abdou Fatah xam nañ ko ci Ndakaaru ak ci sëñ Mbàkke ma dem ki sëñ wax ko ko ne ko sëñ bi ne moo ma waxan ne ma ndax booba sëñ Mbàkke dama waxan bu la sëñ bi yónneetee te lu jàmp man ngaa yem ci Moor ñaan ma ma ñëw wax ko ko waaye sëñ moo ñaan nag ne ma loolu moom demee na noo xamante ne nii faaw damay dem ba sëñ Mbàkke ma leeral ko ko bi mu demee mu ñëw mu ne ma dem naa gi sëñ Mbàkke de sëñ Mbàkke li mu wax mooy sooy bu Siise bu ñëwatee ne la sëñ bi nee na bu lu ma ko laaj lam la wax rek def ko am keneen kilifa gu ma yónni ne ma boo demee ne ko kat suufam soosee dama faa soxla nangam kilifa gën na ma tappale yi ngeen di def sëñ bi bu leen yónnee ngeen di tappale daan bëgg a jël sëñ bi nii waa baax na xëy si suba si jot ak mu xëy si sëñ waaye ke rek maanaam bi mu tàmbalee maanaam gis na sëñ bi melokaan melo woo xam ne xam naa ba mu xamee sëñ bi ba tey moom mës na gis sëñ bi ci melokaan woowu ilaha illallah ne sama liggéey bi ngeen di gàllankoor bu ngeen ko bëggee gàllankoor man du ma ko nangu ndax fii kenn amu fi dara ke rek sëñ bi baat bu mu daawul utilise baat bu mu daawul jëfandikoo sama baay sama waajur maanaam baat bu fii sëñ bee moom lépp dal ci kawam dal yoo xamante ne nii maanaam sëñ bi ba mu génnee tiitaange tiitaange tiit na tiitaange joo xamante ne nii lépp nag loolu ngir dëkk bi ñor ko ñor dëkk bi ñor gum ko ñor waaye nag léegi nag xoolal nag kon ñu war a sant yàlla bu baax dalal xel ndax Cheikh Mahamadul Muntaxa mi nga xamante ne ni mooy Cheikh Sëñ Touba ca tànk yooyu rek la jaar ndax moom tamit kenn ku ne gis na ne yitte dëkk bi ni mu koy yitteele mébéti sëñ Saliou yooyu tamit nam koy soññee ak nam cey nam cey nam cey nam cey dage lu nekk kon nag waa réew mi nga xamante ne ñun ñoo dëkk Touba muy taalibe yi muy ndaw ñi war nañoo bàyyi xel loolu nga xamante ne nii mooy sëñ Muntaxa bëgg ci dëkk bi te du dara lu dul yar nit ñi soññi leen ci gën a bëgg dëkk bi soññi leen tamit ñu fonk dëkk bi ak soññi leen tamit li fi sëriñ Saliou naaroon muy ay projet di ay mbedd ñu bañ koo sakk bañ koo def dara sëñ Muntaxa ki loolu rek la nekk yàlla nañ ko ñu ngi koy ñaanal suñu borom may ko ñu ndam waaye taalibe bu nekk xam na tamit loolu bu egsee ci yow mu xam ne suñu njariñal bopp la loo xamante ne dañ cee war a góorgóorlu kon sëñ bi moom diggam ak dëkk bi loolu la woon waaye diggam ak réew mi nag ndax réew mi fi mu nekk nii fii mu toll dafa mhm. masaa toll muy jub ñu jub ay élection coow li bari lool sëñ bi li muy njëkk a yittewoo mooy dëkkee sàkk sarax génne alalam di sàkk sarax ngir jàmmam ci réew mi dëkkee ñaan sëñ Abibou Diop mii xam na ki dara santaane ñuy jàng ay kaamil ci ay pénc di teral nit ñi ngir ñaan suñu borom def ci réew mi jàmm kon mbokk képp koo xamante ne nii mu murit nga képp koo xamante ne ki njaboot sañ sëñ Saaliwu nga yu mel nii bu xewee war ngay sàkk sarax war ngay ñaan di ñaanlu ngir suñu borom def mébétum sëñ Saaliwu moom ndegam nag lottu nga xëy na ci ñaan ak ñaan la waaye nga yar sa bopp yar sa jëmm ba lépp loo xamante ne nii day indi ay coow ak i rëng-rëng yow yoo la kenn bañ la caa dégg kenn bañ la caa séen ngir loolu nga màggale ko fàttali ko ko suñ jàmbaar gi tedd ji ñuy fàttali muy muy muy muy muy sëñ Saliou Mbacke ndax sëñ Saliou Mbacke kat moom kenn mës sa xam soxlaam ndax Abdoulaye Wade mi nga xamante ne sëñ Saliou ko defal lépp keroog ba mu faloo ba ñëw ci moom ne ko sëñ bi rek dama ñëw di la sant si te tey bëgg xam sa soxla ndax li may doxale réew mi nga wax ma nan nga jàpp ne noonu moo ci gëm noonu moo ci gën ngir réew mi aw yoon sëñ bi ne ko man de benn soxla rek benn benn soxla rek laa am mooy Sénégal gi nekk réewum lay lay loolu ñu dindi ko ci constitution bi mu bañ a amati. Hmm. kon kooku soxlaam soxla si ñëpp la soxla si jullit ñëpp la. président Ablaye tamit daf ci yéene dem Ndakaaru wax ko xam nga fay Ablaye Wade moom dafa kii la woon nu mu tuddati libéral la woon lu xalaat rek da koy wax. pression yi nag jógee fu nekk ci àdduna bi nga xam nga Sénégal ni mu toll ci àdduna bi xupp yéeg tubaab yeeg coow yëpp ba mu dellu si ki sëñ bi xamal ko sëñ bi ne ko yéene woon naa ko day waaye nag nangam ak nangam ak nangam ndax booba xam naa ne àddina bi ni mu bindoo xamal ko ne tamit loolu xam nga suñu yi loolu mënu fee am sëñ bi ne ko ah sàllaaw Mauritanie day ñun ak ñoom France ak ñu bokkat yilif dafa war a laïcité amu fa sëñ bi moom xam na ne loolu mën naa nekk <laughs> waaye rek sëñ bi li mu teg mooy kon de bu loolu jàllee ndax nee na suñ sëñ bi ndax ne moom suñ borom lépp lu war a am dina ko amal doomu aadama bi sëñ bi da ko daan wax day ñaan suñu borom te di ko sant ci diggante boobu rek la war di baagante waaye wër ta xalab ak sabablu lépp mbir mu gis rek ñoom ñu baax ñoo ñu bëgg ko rek mu am gàllankoor rek xamal bañ ko bëggee rek borom dana ko def waaye nag ñoom ñaare dañoo xam-xam xam sañ-sañ suñu borom ba duñ sàññaa fa ci yenn yi kon ñu rafet ci njort na mën naa am ëllëg mu ñëw waaye sëñ bi la mu ko teg mooy ginnaaw loolu jàlle da bëgg naa ñoo xam ne diggante Mbàkke ak Bakel da ci réew mi lañu bokk ñu fàttaliku leen loolu lan moo ki ciy njëriñam diggante Mbàkke ak Bakel ci réew mi lañ bokk bëgg naa ñu fàttaliku leen loolu mooy àll bi nga xamante ne nii jàppoon nañ naan jàppoon na Sénégal Ndakaar ak ak Ndar rek la yam waaye sëñ moom gis nga xam gisee xam naa ne moo tax président Abdoulaye tamit loolu nañ ko ci sant ndaxte gis nañu tamit lim def Fuuta ak lim def ci àll yooyu yëpp def na fi ay ay projets yu mag a mag xam naa wax jóge tamit doon na dara booba tamit ba léegi loolu mi ngi dox ci kon xam nañ ne sëñ bi moom réew mi rek a ko kon tamit ndegam ñun ñoo bokk réew mi te ñu ëpp ci réew mi ndaw ñi dañoo jublu sëñ Saliou bëgg ko kon war nañ leen a nag moom yenn responsabilité la bañ ci réew mi sëñ Saliou bëggoon na réew mi bëgg koo xamante ne li ma wax léegi sàkk sarax ñaan ak lépp loo xamante ni mas naa yëngu ci réew mi poosam moo ciy jiitu gis ngi fàttali yéen a ngi fàttali ko lakk gawañ ko Sonacos yéen ngi fàttali ko xëy yeneen xew xew yeneen xew xew lépp rek poosam moo ciy jiitu kon bokk ñu ñi nga xam ne ay njabootam lañ ñu bàyyi xel loolu di fexe jàmm di am ci réew mi fexe fonk suñuy kilifa yi diine yi ñu am ndax sëñ bi kat kenn ku ne gis na résultat bi ko yàlla fayee li ko ko gërëm may day jaamu yàlla bokk na ci liggéey baax na ci waaye fonk ay kilifaam day li mu ko may bari na lool. kon bokk ndaw ñi nga xam ne dañuy xeeñtu sëñ Saliou ñoom tamit ñu fonk seeni kilifa xam na seeni kilifa muy Cheikh Mahmoudou Mountakha jàmm rek la ñuy lu baax rek la jiir lu baax rek la ñu bëggal lépp lu muy def ci Touba ak di ko def ci réew mi ngir suñu njëriñal tey la ak suñu njëriñal ëllëg loolu daal xam naa ne cig cig cig cig cig cig cig euh, njaalbeen bu ko defee sañ affaire ñu barkeeloo loolu ba ñuy si bu soobee yàlla jërëjëf euh, ndeysaan sëriñ Souhaïbou man damaa doyul sax nit ndax waxtu rek ma jàll waaye ni ñaari waxtu wala ñett ndax sëriñ Saliou li ko sëñ bi waxee ci njëlbeen gi mooy doon na koo xam ne bis bu ne mën nañu wax ci moom mooy kon bor boo xam ne mënuñu ko fay te nan ca loola sëriñ Basiru ñu ngi koy ziyaare bu baax moom sëriñ Mbàkki Mouhamed moom itam si na léegi Ahibahul Khadim ñu ngi koy mm, tatagal di ko dalal di ko ñaanal jàmm sëriñ Basiru Fall di ci bég lool nag waaye di fàttali it mbokk yi sëñ soy bu muy dama laa fonk ñaari yoon ndax samat ñoo bokkoon kër sëriñ Basiru Cissé sama mag yu tedd ja ba muy sos daaraam ja ba mu koy sanc waaye itam sama mag ji baax ci sëñ Abdou Cissé du ma ko fàtte mukk moom la sëriñ bi yónni woon bi mu may jël si moom ma jël si njaareem te ba mu may jël sax ñëw tàggu sama baay daa ñëw jël ma ne ma nañ dem sëñ bi la woo sama baay dem ba mbuur sama baay door a xam ne sëriñ Saliou la àndal loolu moom maa ngi koy sant fu ma toll di ko ñaaral muy sëñ Abdou Cissé waaye nag di la santaat bu baax a baax mm, euh, xam naa bu bu wax ji gënoon gudd way yi way yi gën fee yokk ndax kenn ku nekk am na loolu sëñ bi defal ci daara ji ni ko sëñ bi waxee léegi boo boo nekkee ci daara ji loo jéem man ko man la ma naan loo jéem man ko ndax sëñ bi daa jàngale nu ne am na ñoo xam ne bi ñu jógee ci daara ji lañ daan fooyee moom la ñu sëñ bi dimbalee tey moom la ñuy yem di ko liggéey man man naa jox misaal sama dama fa daan nekk di def ay weer yoo xam ne dama ko daan def fii di fer di toppandoo ay journaliste yoo xamante ni jamono yi ñu si wala di leen toppandoo gars yi di ma reetaan may def journal moo tax bi ma njëkkee dem def journal ci Touba TV sëñ laa ma njëkk a woo ne ma bi ngay def journal mënu ma joxe la moom sëñ Fall damaa tiit defe ne da ma def ba war a daaneel daal di tëjee nag wooy wa xoromu maanaam ndekete sëñ Fallou Sèye de Khadir mi ngi koy mi ngi koy mi ngi koy seetaan moom itam dafa maa wax ne ma booy def journal damay bëgg wooy wi li ngay tëjee dama koy bëgg a fekke euh, ubbil te tijjil te baddil bunti àll yi afal bunt yi njëriñ yëpp biir bitti fekk nattu yi loola ak yooyu kàll da leen di neex lool mu doy waar lool waaye loo jëm ci sëñ bi rek ci daara ji daal koy sëñ bi am nay journaliste am na ay man am na lépp loo xam xamante sëñ Saliou rek daa mel ni su borom da koo sàkkal ko ko man mooy li sëñ Abib doon doon wax lu sëñ bi bëgg rek sëñ bi wutal na ko suñu borom wutal na ko ñoo xam ne mën nañ ko kon ñi gi santaat bu wax tey gërëm waxtu yi moo xat sëñ Abibu waaye nag ma bàyyi xel ci ne sëñ Abibu Jóob mii am na daara joo xam ne taxawal na ko muy daari Serigne Saliou ci Touba Thiawén muy daara joo xamante ni day mel day delluwaat ci daari Serigne Saliou mooy daara ñuy jàngale alxuraan dafa jàngalee xam yooyu nag la sëñ bi boole ci jenn daara ndax da daan jàng alxuraan ba noppi dem jàngi téere beneen ci feneen ndax daaw ñu bokk foo koy jànge waaye nag sëriñ bi def na moom jenn daara ji sëñ daara yaa ngi fi ñiy jàngale xam-xam ngi fi te doo génn daara ji mën a jàng alxuraan jàng xam-xam kon loolu daara jooju ni nga koy bàyyiloo xel ñëpp moom itam ñu mel ni moom mel ni suñu Alaaji Lo ñoom tubaarkàlla nga xam ne dañoo taxawal ay daara waaye moom nag daaraam ji moom dafay nekk daara ju mat a bàyyi xel ndax day dellusiwaat ci sëriñ Saliou dellusiwaat ci sëriñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana numéro téléphone am mooy 77 517 45 64 kon numéro bi incha allah dinañ ko wane noonu incha allah ngeen gis ko ndax day sunu jëwriñ lépp loo xam ne taxaw na ci ñun ndongo yi faaw ñu siiwalal ko ko incha allahu taala euh, damay daal di joxaat nag bala ñoo tëj naa ne maa ngi ñaan ñi ma jàkkaar lool xam naa dana gàtt waaye tëj rek lay doon eh, su ko defee nag ñu door a tëj jataay bi sëñ Abibu eh, kàddu yi nga xam ne moom nga ci dolliwaat rek soof ko ci mu nekk loo xam ne tëj lay doon. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw moom man la ni wax ji moom tëju na fii ne ndax liñ bëgg mu feeñ ci sëriñ bi feeñ na eh, tuuti la waaye mm, doy na. ndax duñ euh, ju doy na boroom xel mm, ba tax na boroom xel mu ne daa dina xam fi mu ne nii fi nga xam ni fi lañ jëm ndax sëriñ bi moom buñ si doon waxtaan bi mel na man rek li ma li ma xam ci sëriñ bi mën naa ci wax mën naa ci waxtaan ba suba boo ma la sëriñ Sooy boo ma la sëriñ Sooy Jóob mii nga xam ni moo ñu gën a féete ndaw ba noppi euh, am xel am xam-xam kenn ku nekk ci ñi fi toog mën ngaa wax ci sëriñ bi loo xam ni euh, ba tax na kon liñ ci junj liñ ci jël lu mu tuuti doy na sëkk kon noo ngi sant ñëpp noo ngi sant sëñ Chouaïb dama koy gën a sant ndax li ma koy gën a sant mooy ndigal li ma mujj jot ci sëriñ bi moo ma ko jox ndigal li ma sëriñ bi mujj jox moom mii moo ma ko jox fekk na sëriñ wax na ma ko waxaat ma ko waaye yónni waa sëriñ Chouaïb bi ci man mu ñëw fedd ko dama sëriñ bi daara ji ak jàkka ñu ngi sa loxo nga xam ne daara ji ak jàkka ji la ma dénk loolu mooy sababu daara ji nga xam ne moom laa samp ba ko liggéey loolu mooy moo moo moo moo mooy sabab si xam aw ma aw ma leen lu ma a def ludul wala lu ma war a def ludul li nga xam ne moom la moom la ma bàttale no do am noonu la ko wax man sélection yi mi ngi lay mi ngi lay fàttale lim la lim lim joxoon muy daara ji ak nga xam ne yëpp a gis loxo jiite jàkka ji jàngale ci daara ji mooy suñu ndigal loolu nag moom laa koy sant ndax moom ma ko mujj loolu ndigal laa mujj jot sëñ bi loolu bi mu amee ak bi sëñ bi demee gisaatuma fi sëñ bi eh, bi kon loolu kooku moom waxtu moo ko gisee rek damay gis ne damay jàpp gis naa Serigne Saliou ndax màgg naa ko lu bari njëkkee naa ko fi lu bari waaye sunu borom taw feexal na na ko ba ndigal li ma mu jël Serigne moom ma ko jox kon dañ koy sant bu baax di ko ñaanal sunu borom may ko fa ndigal waaye suñu suñu wàjjiri ni meloon moom moom moom kii maan la loolu kon moom loolu mbokk démb la tey soog a ñëw jërëjëf. jërëjëfati jërëjëf sëñ Cheikh eh, kaddu yi tënk yi waxtu wi daa mel ni daa mat rek loo ci wala dolli rek. waaw ah, jërëjëf sëñ Afe man kay dama rek ñoom samay kilifa dañ fay nekk moom te lépp ñoom ñoo ko xam ñoo koy wax waaw dama leen sant ci boole gi ñu ci boole rek ngir ngir teete ñu ak wan ñu yoon rek ak yaatal ñu waaw li ñu jeexale moom mooy sëriñ bi moom daa def li mu war a def lépp ba wàcc la alxuraan waxoon ne yàlla mi ngi digli ak maandu te ak maandu booy lenn lu ne nga jox ko àqam kenn ku ne nga jox ko àqam loolu suñu champs bu mu duggee léegi ci dëkk bi réew mi adduna bi kenn ku ne ni la jox woon boo duggee ci biir nit ñi itam benn benn ci réew mi mboolooy yi tarixa kenn ku ne mu jox la sa aq ba ngay na yow dong la féetal ba ñëwee ci donga yi itam li ñuy bari bari kenn xamul nuñ toll kenn ku ne sëriñ Saliou jox la sa aq ba da ngay da ngay fàttaliku bis ak guddi yoo xam ne da ngay xam ne yow dong yaa ko am ci moom mm-hmm. mat googu nag waxuma la àq ji waaye kenn ku ne mu jox la sa àq ci wàllu jàngal la ba loo xamul cim jàng da nga xam ne dogalu suñ borom la waaye desalu la ca dara lu ne daj na ko ci sunum jàng sab yar daj na ci lu ne nga xam ne mbooloo mi ni mu baree demee mënoon naa programme yi ñëpp waaye ginaa bi mu programme ba ñëpp li ci gën a yëm mooy day day day teqi par benn benn kenn ku ne mu da jagleel sa orientation bopp di la jagleel sa yitte jum la jox ak bëggal gum la bëggal foo foo àgg loola lam ci jublu woon mooy kenn ku ne mat li nga doon fi mu la jëme woon nga xamal ko sa bopp ba ëllëg doone man sëñ bi nangam ci nangam laa ko jëlee waaye da ngay xam ne sa jagleelu bopp am nga sëñ bi koo xam nii loolu nag buñ ko dajalee mooy doon doole ji nga xam ne moom la donga yi mën a lënkalikoo mm-hmm. ak ñi ànd ak moom mën a feeñal liggéeyam boobu loolu daa ñu ngi leen ci bàyyiloo xel bu baax a baax a baax noon la matala woon digganteem ak boromam sëriñ bi daa mat matal loo diggante boromam ci wéetal yàlla man koo jaamu ak kum gis yéene loola loola nga xam ne moom du doon nit koo xam ne day jëriñ boppam rek waaye gis nga sëñ bi ku mu gis noo mën a sant ko mën a doon yéene na la xam-xam bi mu am nga am ko yéene na la defaroo gi mu defaroo nga defar ko ba day mel ni sax moo la jur joxoon googu mu jox àq yëpp nag waa kër sëñ Tuubaa yi seexi sëñ Tuubaa yi taalibi murid yi daayira yi waa waa waa ñi féete ci xasida yi ñi féete ci alxuraan ñi féete ci xam-xam ñi féete ci liggéey ak liggéey ni mu ci doon tàggate doomu aadama ni mu ko ci doon dimbalee nga xam ne njëriñ gi mu ko jëriñ ci boppam rek wax naa ko léegi loolu rek moom kenn mënu ko cee eh, nattale kon ñu ngi ñaan yàlla fayal ñu ko bu baax a baax dañu ko fayal fu mu toll te liggéeyam boobee suñu borom gën koo lawal gën a dimbale ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk ci anam guñ ko guñ ci mën a jàppee bañ àggale ko foofu ba njort asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu sëriñ Cheikh béggaat nañ lool Diouf Imaam la ñaan suñu borom defal la jàmm ni nga waxee ci jëlbeen gi rek ni nga ko waxee mooy. Eh, ihmal li dunyaaka ka annaka taxiisu abada wa ihmal li axiratika ka annaka tamutu xada wala liggéeyal adduna aha eh, sa adduna wala liggéeyal alaxira nga xam day mel na ngay dund faaw waaye mel ni ne ëllëg wala léegi rek nga fi jógee loolu lépp njëlbeen gi indi na ko ci Serigne Saalih eh, mu mel ni xam naa Serigne Souhaïbou am na kaddu yoo xam ne moom ngay tëj tey am solo lool su ko defee ñu ñëwaat ci rek ba noppi door a ñëw ci Serigne Cheikh kon mu mu ñaanal ñu incha allahu taala waa bisimilah. waaw jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax yow mhm. xam nañ la bu yàgg yàgg yàgg ci njaareem. ndeysaan ndeysaan. njëkk sa ñëw sëriñ bi. wallaay wallaay. ba bi daan gane si cofeel goo amoon ci sëriñ bi sëriñ bi am cofeel googu ci yow. wallaay wallaay. ba mu sàkku am na ñoo xamante ne ni seen i waajur leen jël jox leen sëriñ bi. waaye yow sëriñ bi ci boppam moo sàkku sax ñëw ci moom ndax sax bëgg xasida sa yàgg jàng xasida yu neex di ci bégal di ci bégal sëriñ bi booba léegi nag sa dara ngeenu sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax di eh, sëñ Balla Diakhara ñu koy yóbbante am nuyoo ci sëriñ Cheikh moom sëñ Saliou mm-hmm, mm-hmm. nga xamante ne nii mooy jataayub ka mooy kilifa jataayub ka sëñ Saliou mm-hmm, te jamono ji dafa nekk jamono joo xamante ne nii am kilifa neex na am kilifa naqari na ndax jamono gi daa ubbeeku léegi ku ne sañ a wax ku ne sañ a bind ku ne sañ a coow waaye am kilifa goo xamante ni lu wax ji bëri bëri bëri bëri bëri mhm. boo tëddee di nelaw lu coow li bëri bëri bëri boo tuddee da nelaw ndax moom liñ ko mën a waxal rek mooy jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla ki jëmi boppam mhm. toggoo ci coono yi metti mhm. Mm-hmm. waaye liggéey alalam tamit lam cay am mu delluwaat ko ci suñu borom delluwaat ko ci daaray alxuraan mm-hmm. delluwaat ko ci ay jàkk mm-hmm. delluwaat ko ci ay juma delluwaat ko tamit ci dundal ay jàkka ay juma kon loolu ku ko am ci jamono ji doy na doy sant yàlla bokk na ci cër yoo xamante ne suñu borom moo koy maye tañ may nañu ko ñun waa kër sëñ Saliou may ko tamit ci njaboot ak sëñ Saliou yëpp ñu ngi koy ñaanal suñu borom gën ko fee yàggal amin amin a mottali ay mébétam amin tey soññi ñu gën a laxasaayu ndax sëñ seex moom ba mu laxasaayoo kenn xamuloon kañ la wallaahi loo xamante ne nii maanaam ceg ndawam ba nëga ni mhm. lu mu mas a liggéey jox na ko waajuram wu tedd mhm. te mës a wàcc ndigalam mhm. fu mu mas a yendu moo ko fa yendal fu mu mas fanaan moo ko fanaanal te ba nëga ni si la gën a takk laxasaayam kon taalibe yëpp fan nañoo xam loolu gën a faw te jàppale ko ci liggéey boobu alhamdulilah kon boog ñu ngi sant bu baax a baax sëñ Moustapha Diop tamit mi ngi sant ñu ngi koy sant bu baax ndax bis bi da koo fonk lool ndax sëñ Saliou am na lu mu def ci moom lu bari sëñ Saliou tamit am na cofeel gu ma aman ci moom mhm. loo xamante ni ñun ñi ne woon ak sëñ Saliou xam nañu ko am na wëllëre tamit yu yàgg yoo xamante ni sëñ Saliou seq na ko ak ay maamam waaye yooyu yëpp rek moom te na ko te jàpp na ko bi da koo ñor bu desee ay weer day soññi ñëpp loolu bi yi nga xamante ni jàpp nañ ci tamit moom nee na nañ ko santal alaaji sëñ Moustapha Seck doomi alaaji Moustapha Seck mhm. mhm. da koo bokk ak moom jàppale ko ci jàppale ko wér a wér a wér mhm. kon boog daal ñi wax na jërëjëf comme li ñu waxaan léegi rek ndaw ñi daal nañ xam ne sëñ Saliou lim lan def ci ndaw gi suñu borom fay na ko. Mhm. ndax ku gis ñi nga xamante ne nii noonu la ko ndaw ñi jubloo. Mhm. ñi nga xam ne xaman nañ ko xamuñu ko. ak barabam bii nga xamante ne nii fa tëdd. Mhm. nañ koy def guddeeg bëccëg. ndeysaan ndeysaan kon suñu borom la mu ne du ma nax kenn. wallaahi ku ne xam ne ne moom suñu borom moom naxu ko. wallaahi kon boog nag waaye nag lam daa wax ndaw ñi. nga xamante ne sëñ bu Jóob yi moo ma gën a xam. daan aw ñam wu bëri. neex lool lépp nekk ci. mu noppi. onze heures ci bëccëg waaye sëñ Saar da koy teg ne ci ay taabal gone yi di xool ñam bi. ndeysaan mu toog dina ci ay lawraatam ne ci alxuraanam ba ginnaaw tàkkusaan ba timis. Hmm. mu door a santaane ngi jox leen ñam bi. boobu lan la ko jublu woon ñu ba ngay yàkkamti seen àdduna. ndeysaan ndaw la dañ ko tàmbaloon di jàngal. ba ngay hmm. yàkkamti. kon boog ndaw ñi nañ xam ne suñ suñ Saaliw dara wax ne. Hmm. jamono du léegi la naqari. naqare woon na bu yàgg mhm. nee na sëñ Moustapha Saliou doomam ca njaareem mhm. am na fa tiisi boo xamante ne dafa demoon ci bitigum naar jënd ko fa mhm. ba ke déwén sa mu bëggaat tiisi ba nee na mu ne dem ca naar ba di ñaan naan ay waay yàlla naa fa fekk tiisi ba ndeysaan nee naar ba ne koy meetar ba nga ca xotti wan daaw tiisi baa nga ne boobaag léegi kenn laalatu ci dara kon xam nga ne booba kon jabara neexul kon mbokk bu ñu demee ba tey nii nii nii nii xéewal yi li mu bëree ñu naan ñu naan jamono daa naqari hmm. booba da dañuy font rek sëñ Sall ci booba mooma nett li ci làmmiñu boppam nee na dem na Ndakaaru hmm. am fa ay weer yaakaar naa booba xam naa ñoom sëñ bi bu jóob ko taxara jóg ndax nee na booba daaree ko soowu ba la hmm. maanaam ngir toppatoo fa ab dund waaye nee na am na fa ab diir ay saako yu sumul la fa jële maa la wax de ay saako yu sumul wallaahi nee na bi mu ñëwee bi mu ñu joxe ñu ñu lekk sumul ba mhm. xotti tiis yeeñ saako yooyu ñu mu def ko ay mbubb ñu dongee sol ko fukki mbubb ak ñaar mi ngi noonu keroog ba ma koy ba ba may nettali loolu booba dañ koo ñawal fukki junni mbubb ak ñaar macha allah indil ko ko jóoral ko ci kanam wallaahi xelam dem ci loolu wallaahi ma ko nettali wallaahi kon bokk kenn ku ne xam na suñ borom moom kenn kenn du yàkkamti ñoo ngi noo ngi nag ñoo ngi nag ni ñu melal ñun tamit bu ñu leen bëggee bëgg roy ci ñoom dañoo war a jaar tamit ci seen yooyu ci seen seen melo yooyu ak seen njàngale yooyu di góor góorgóorlu nag macha allah te bëggee yàkkamti asalaamaaleykum sëñ Abibou Diop tamit daaraam ji moom kon nag ñu ngi ciy songi ñun suñu bopp di ngi songi taalibe yi yëpp ndeysaan ndeysaan ndax kan mooy def daara mhm. ñu ne sëñ Abibou Diop moom sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana wallaahi loolu rek loolu rek doy na taalibe bu nekk sonn ci wallaahi wallaahi waaye ak ni mu demee ak sëñ Saliou Mbacke. Mm-hmm. sëñ mm-hmm. Saliou Mbacke mi yóbbante bi ma mujjee yóbbante ci moom moo ko nettali boppam léegi. Mm-hmm. ñaar yooyu la ma wax. boo demee ne ko maa ngi koy dégg jàkka ja daara ja. kon boo kon moom maa ngi koy dénkaanam ba tey kon boog ñëpp nañ ci nañ ci nañ ñaan. nañ ci jàpp ba ni mu ko bëggee suñu borom defal ko ci lu kawe njortam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne bo yàlla na yàlla mottali say yéene yow itam eh, wax dëgg yàlla ay nag naka jekk daa rafet eh, li nekk ci xelam bu ko yàlla di def moom yaakaar naa kon lu bari dana weesu fii ñu ngi koy santaat di ko gërëmaat bu baax ci teewaay bi ndax ñu bari namoon nañ la waaye teewaay bi jur na lu bari wax dëgg yàlla kon sëriñ Jili Busa moom eh, tubarkàlla ñu jox ko mu yëkkati ji ay kàddu itam xam naa na nekk soññee mu gën a ñu gën a xam fu ñuy tegaat suñu tàgg incha allah bismillah si Abdul Xaadir asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñu ngi nuyu bokk fi teew yëpp di sant bu baax di am mbégte bu baax ci fekke jataay bii nga xam ne jataayu sëñ Saaliw la yàlla dogal itam bi ma ñëwee dégg waxtaan yi ma am ci loo xam ne mënu ma koo ñàkk a ci siñ Saaliw muy ñaari yëf muy jumaa yi sëñ Saaliw wax léegi ak wàllu alxuraan ji nga xam ne itam mu ngi ci woon bu dee ci wàllu jumaa yi yàlla dafa dogal man ma yor jumaa joo xam ne moom moo ko liggéey ba mu àgg mu wax sëñ fàllum sëñ Abdou Khadir jox mu wax ma jox ma ndigal ci ma yor jumaa ji di ko taxawee mu jumaa ji nekk ndaamaatu ci wetu kër ma di keñang euh, jumaa jooju mu ngi ubbi woon 2004 ba léegi nii maa ko yor ci ndigalam laa ko yore woon ba jumaa ji rek la la ma ko jox ma yor ko bu ko defee na kon day mel ne mu doon wax ci jumaa yi loolu damay eh, firndeel rek eh, jumaa yi ni nga xamee ne noon la ko yaatale ci gannaawam ndax bokk na ci la ci gën a am solo sax jumaa ju ne day wax ne nañ fay julli iid itam ndax bu fekkonte ne bi àjjuma rek lañ fay julli dañ fa julli julli iid dëkk bi dana gën a xat waaye lépp la boole woon joxe ndigal bañ ñuy ba def lépp bu dee ci wàllug alxuraan gi itam yàlla dafa dogal mu liggéeyal ci seexul xadim liggéey boo xam ne bi yaakaar naa ne ñi ko ci am bariwul eh, na ci ay jamonoom xam nga daan nañ am benn bis rek boo xam ne day woote ci këram ñu wàcc fa ay kaamil ñetti téeméer ak fukk ñett ci benn bis loolu yaakaar naa nekkul lu yomb loo xam ne eh, tey it ci moom lañ ko njëkk gis yaakaar naa bu ma jëmut mu amaat ci beneen cër boo xam ne bi itam bu rëy la boo xam ne bi yàlla dogal na bi nga xamee ne eh, aj màkk dafa jege ma war si ñuy dem booba ñëw naa ba tàggu ko ñaanoon ma ba mu demee màkk ci at moomu ci la wàcc waaye ma mu am fa loo xam ne lu yéeme la ndax euh, keroog yi mbàccee ci bis biñ ko yëgee dajaloo nañ fa wàccal ko kaamil ba altine ji ñëwee ñu di ko ñaanal ñu dajalowaat wàccal ko ay kaamil moo tax mu am benn marché bu ma ko defal boo xam ne bii maa ngi ciy wax ne euh, alxuraan day indi yàgg na fee bàyyi ko ñu ñaanal ko jàngal ko ko waaye jàngal alxuraan nag fi nga xam ne fi la alxuraan wàcce koo xam ne dafay bàyyi ko yaakaar naa loolu moom ci moom la njëkkee fi alxuraan wàcce ñu jàngale ko fa alxuraan waaw loolu moom yaakaar naa ci moom la njëkkee euh, marché boobu maa ngi ko tàmbalee woon ci kaw kabun aafilun am xamalun afara afala kallaa waqat afalat shamsu duha bada ka an sursilat ardun bi rummatiha lamma ana an naasa naain ashadal fudala bal rujjatil ardu rujjan fi mashaariqiha kasaami xaaribiha salil hujaaja ala xat kuntu bin baynim ayyaamaha walisa fa laysa aalimu cheyin misla man jahila kon loolu ba tey wax dëgg yàlla mu doon koo xam ne kii daal wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla fayal ngeen ji fay ci daraje Seexul ne waaye doon na koo xam ne ku jamononteeg moom ku ne rek maanaam am na loo jëlee ci moom loo xam ne doy na la àdduna ak àlaaxira waaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suñu Moustapha itam di nuyu mbooloo mi yëpp di li ba balu àq ñëpp leen baal àq wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon mbokk yi santaat nañ bu baax a baax a baax ci teewaay bi niñ ko waxee ci njëlbeen di santaat bu baax itam sama conseil bi mu fekk moom itam di ko xam ne kenn la ci man maa ngi koy ñaanal te di ko ñaan lul sañ naa ko ndax nit ki bu lay conseillé di la jox ay yére yu rafet nga di ko sol bu bëggee ku la gis xam sëriñ bi dimbali na la kooku mun sañoon ñëpp ñaanalal ñu ko euh, bëggul sax ko waxturam waaye nag mii ci jataay bi ñu ngi ñaan suñu borom jàppale ko dolli ko toofeex bu baax ci barkeb sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim santaat bu baax sëriñ Abdou Samad Mbacke moom sëriñ Souhaïbou moom sawar naa lool ci tudd ko wax dëgg yàlla seen son moom man wax dëgg yàlla dama koy sant ndax dafa am bis mu jóge ci sëriñ Saliou ñëw ci kër sëñ Souhaïbou boobu sëñ bi damaa jox sëñ Souhaïbou ma fay jàng ci laat jaxate waaye sëñ bi daam bis mu ñëw daan ne laat ana sëñ Afe ku ñuy wax sëñ Afe mu daal di may woo ma dikk mu ne ko sëñ Afe ngi nii mu ne ma sëñ bi dem moo ne ma naa ko jàppale ba mu bañetu mu rànke sëñ bi samata moo wax li sëñ sëñ la sëñ bi la jaxate wallahi la asid kon nag damaa bëggoon a xàmmee ba jàppale ko mu bañetu mu ci kër gi keroog bi mu waxee loolu bis boobu ci biir néegam laa fanaan sëriñ Abibou Diop tey jii day imam ci lu wér donn na baayam taroy seex saalihu ci dëggal ndigal la mooy jàng ak jàngale ak di liggéey te loolu la ci loolu la sax dàkk moom mi moo ko dolli ndimbal sëriñ bi daan wax ne ndigal ak ndimbal ñoo bokk benn néeg bu ñu fanaan kon ndigal bu xasee ñëw rek ndimbal moo ci topp kon nag jaajëf sëriñ seex sa wax ji doy na koy wut a xam dalil yi leer na sëriñ seex Juuf imam wéyalal sëriñ Sohaybu mu sëñ Mor Mbay waxam ji rafet tegtal la ay waxam leer na wér na ku dëggal xanaa ma wax jërëjëf thank you wa merci beaucoup sukran jaziran jasakallahu jar ngeen ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin